affaire u 94 milliards yi euh, jàpp naa ne nit ñi Sénégalais yi comprendre nañ li nga xam ne ñun war nañ ko si communiquer ak li ñu ci war a wax lépp def nañ ko ci euh, am na commission enquête parlementaire def nañ ko ay weer euh, publier nañ seen rapport jël nañ seen rapport après bi ñu paree ñun ñi nga xam ne mooy Mamadou Mamour Diallo porté na plantique ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. Euh, léegi nag euh, loolu mu ngi si loxo yi yoon jàpp naa ne bu ñu xëyee suba dégg ay nit ñoo xam ne dañu bokk dañ leen naam sax dañu bokk mouvement présidentiel mais euh, kenn xamu leen ci biir mouvement présidentiel muy ay nit ñoo xam ne xëy na amuñu existence politique dañuy proxtu si yenn dossiers yi wala yenn wax yi pour mën a am tur moo tax mu ku ñu wax ku tudd mbott xawma ma nan Eh, di di di jóg di attaqué di di attaqué di attaqué Mamour Diallo kooku intéressé wu ma parce que du ma di ko may di ko may di ko may eh, di ko may publicité parce que kenn xamu ko si biir mouvement présidentiel gis nañ ko muy attaqué di wax naan am na ay preuve su nekkee dafa am ay preuve te ñu nekk si réew moo xam ne réew réewum démocratie la eh, te mbir mi nekk si loxo yoon na dem jox ko yoon librement jarul convoqué journaliste jarul def dara gis naa muy attaqué. président de la république Macky Sall président Macky Sall moom mooy président euh, parti alliance pour la république di président coalition Benno Bokk Yaakaar ak la grande majorité présidentielle mu nekk koo xam ne sunu kilifa la euh, mu uuf ñun ñëpp pour ñu ànd liggéey Sénégal euh, jàpp naa ne ku taxaw di am looy wax si moom jàpp naa ne sa bopp nga xas. Sénégal démb amaat na ndam si démocratie parce démb. Euh, salle euh, de Bruno Diatta bi nekk euh, palais de la République daje woon na képp kuy sénégalais ak muy acteur politique acteur socio politique ak économique ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu pour li nga xam ne mooy intérêt Sénégal kon loolu dañ ci remercier président Macky Sall bu baax a baax a baax a baax di ko wax ne lii waneti na ne moom nitu jàmm la nit la koo xam ne réew mi moo ko yitteel képp koo xam ne nag Sénégal yitteel na la euh, da nga rafetlu li nga xam ne mooy dialogue bi parce que Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dañu raw si wàllum démocratie surtout jàmm Sénégal dafa nekk sénégalais boo waxee ñu ne la ñoom dañu am jàmm dañuy ree dañuy kaf seen biir loolu nag sunu maam yi ñoo ko fi suuxatoon mooy. Euh, soo xoolee suñu maam euh, Serigne Touba sunu maam El Hadj Malick Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoom ñëpp dañu fi ñaan li nga xam ne mooy jàmm euh, kon euh, vraiment dafa nekk loo xam ne muy muy dialogue dialogue nag yàlla suñu borom sax daf ko daf ko digle kon su ko président defee du ñu def lu dul nekk ay ndaw yoo xam ne ndaw yi président dañ koy rafetlu aussi di ko di ko sant si choix bi mu def si par rapport ak ay sénégalais yu bari kon vraiment dañ ciy sant bu baax a baax.